dalleen ak jàmm ami site internet réew mi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doore kat yi nga xamante ne dërëm bopp daal dina koy yëkkati moom nag la mu daal di xam ne rek ci diiroo ko ñaari fan rek am na yaakaar ne kii di Ousmane Sonko nag dinañu ko jelloo li nga xamante ne rek moom mooy àq ak yelleefam ndax jamono ji amul benn jafe-jafe boo xamante ne rek mën na xeñ kii di Ousmane Sonko nag mu bañ doon candidat ci élection présidentielle yu ñu dënmal ndax nag bu mu fekkee rek xool nañ ci wàllu justice rek ki nga xamante ne nag moom mooy Ousmane Sonko mën na doon ab candidat jamono ji nag candidat am nag pour ñu daal di koy dëggal rek faw patriote yi nag daal di jàpp bu baax nag la mu daal xam ne rek li nga xamante ne moom mooy ko dul patriote yi kii di Pape Alé Niang nag moom ab question rek la mu daal xam ne rek moo naka la suñu force de défense et de sécurité yi nga xamante rek jamono ji nag ñu ngay bàyyi ñi nga xamante rek nag ñoom ñooy Benno Bokk Yaakaar ñuy lëmbee fu leen neex di teg seen tànk fu leen neex di organiser seen i manifestation te kenn du leen jàpp waaye nag bu fekkee ne rek ci côté opposition bi da rek ñu leen di tere nag ñuy circuler mbir mu nu mel nag moom lan lay lan lay laajte mooy dina dafa bëgg xam rek ba xam force de défense et de sécurité ndax ay républicain lañ wala nag ay farloo la ñuy def ci biir parti bi ndax nag gis na ne rek constat boo xamante ne rek def na ko moom nag la mu daal di xam ne rek moo dina dafa bëgg xam dong rek waral muy poser boobu les questions moom njiital Dakar matin du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar.